nañ ko ñun ñëpp lan mooy li nga xam ne mooy l'élément central de de ce discours là boo xam ne tey war nañ ko jàpp. waaw jërëjëf euh, Lamine li ma jàpp ne mooy élément central te yaakaar naa ne léegi euh, Habib Habib ñëw na si sax mooy le fait que président Ousmane Sonko li mu wax Sénégalais yi nekk dañu nekk ci tournant maanaam mhm. tournant mooy lan xëy na sama sama wolof yiwul torop comme Habib xëy na ma dina ko mun a <laughs> faram fàcce waaye dañu nekk ci foo xam ne euh, ñaar mun a am Habib wax na ko léegi wala fii la ñuy jaar euh, defar Sénégal Sénégal baax jëriñ sénégalais yi ñëpp bokk ñëpp njot si wala fii la ñuy jaar demaat pour encore ay génération 50 ans Habib wax na ko deux générations yoo xam ne système bi kon nekkoon fi avant colonisation topp ñu après colonisation nga xam ne mooy système boo xam ne dafay jël benn élite ñuy noot majorité askan wi di jël euh, ressource euh, xaalisu askan wi ak doole askan ñu ñu téye ko ñu téye ko ñoom askan wi di souffrir loolu mooy continuer

donc loolu mo am solo légui nak tournant bobu c'est très important pour man moy tournant ñep sax que ce soit président Macky Sall que ce soit ñun ñi ànd ak président xam nga lu parce que pour c'est une question de dañu am ambition suñu réew bëgg nañ mu changer bëgg nañ fi jëlee système boobu parce que ñu bëgg suñu réew am na yenen réew yu am dañu bëgg développer dañu bëgg suñu ay ndaw di am liggéey dañu bëgg suñu feebaree mun faju ji si ay dëkk yu yomb et cetera et cetera parce que Sénégal lépp euh, lu war a suqali réew yàlla def na ko fi macha allah benen côté bi nak moy côté système bi côté président Macky Sall ñoom it dañu xam système bi mo leen arranger parce que mo leen téye mo leen di permettre ñu def seen liggéey man nek ay ay ay sous-fifre ay ay ay jaamu euh def di leen lo ñu bëgg di note askan bi ci wàll yëpp di bàyyi majorité askan bi toujours nekk ci benn ndóol nekk ci benn ignorance pour ñoom ñu ci profiter di si tedd en matière de nguuru ak en matière euh, am am am ay koppar yoo xam ne ñoom defuñ ko ñoom ak seen njaboot kon ni mu nekkee tournant si ñun noonu la nekkee tournant si ñoom mais président Ousmane Sonko bu mu paree ci loolu dafa wax lenn lu am solo tey lépp ginnaaw yàlla ci loxo peuple sénégalais la nekk suñ ne peuple sénégalais mooy majorité peuple bi nga xam ne ñoom ñooy souffrir ce système là depuis 1960 ñoom ñooy gis conséquence su système bi lu muy def ñoom si seen loxo la nekk non seulement ñoom ñoo ëpp wàllum ci wàllum lim moo euh, te ñoom ñoo suñ su dee dañoo détermination ak volonté lépp lu ñu bëgg incha allah dina am kon daf leen si woowaat ci woote boobu nga xam ne yàgg na leen woo ci ay meeting am ci ay conférence de presse am pour ñu conscience am doole bi ak état lu mu am am doole am police ak gendarmerie lépp askan wi bés bu génnee ni lii doy na donc boobaa eh, eh, askan wi lu mu bëgg lay am moo tax donc ñu sensibiliser leen si ne que tournant boobu lañ nekk maanaam dañu egg si benn croisement boo xam ne man da ngay jàpp droite Sénégal baax wala nga jàdd gauche Sénégal bonne fii ba ay 50 ans donc message pour man moo si si li ma mhm. mais pour man moo ëpp solo mais par nag conscientisation pour woo Sénégal vous avez votre main. Mhm. maanaam ni Sénégal di même, nag Sénégal day de droite le day de gauche si a rek règle dépend dépend du mhm. ci keneen loolu la am solo te président Sonko il a bien fait d'insister sur ça. très bien ouais on tourne un tournant beaucoup décisif comme tu le dis effectivement modèle dellu si na ci parce que ça nous appelle. Euh, surtout la